إلا الله لا إله إلا الله

لا لا لا لا la la la alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki internet yi nga xam ne ñu ngi suivre partout dans le monde ñu ngi fii ak kilifa gu mag di cheikh Abdoul Baaxi cheikh Hassan Deme radiallahu anhu ñu fekk ko fii si sàncam bi fii si Daaru Mireya nga xam ne mu ngi ko sànc ci benn diir koo xam ne dinañu ko fàttali si biir waxtaan gi ñu fekk ko fii mu yor fi daara yor fi tamit ay xale yoo xam ne ñu ngi jógee si gox yu fasante ko si àdduna bi di jàng. di jaamu yàlla sëriñ bi gannaaw boo nuyoo mbokk internet yi ñu jublu si waxtaan bi. waaw asalaamaaleykum wa barakaatu mbokk internet yi ñuy seetaan maa ngi nuyu ñëpp ci nuyoo lislaam di ndokkeel ñëpp ci weeru koor bi di ñaan yàlla yàlla mu suñu koor nangu suñu jaamu yàlla. te yàlla daq feebar bi nga xam ne tey mooy nekk jaaxle ku nekk ci ñun. yàlla na yàlla jëlee ko ci suñu réew jëlee ko ci Afrique jëlee ko ci àddina bi lépp te yàlla mosal ñu ci ay jeexital yu bon amiin alhamdulilah macha allah gannaaw bu dugg si dëkk bi Daaru Miraaya lan moo waral tur bi waaw Daaru Miraaya mooy kër yi Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiyallaahu anhu kër ca ca Faas kër ga Daarul Miraaya te la tudd euh, ba nga xamee ne sànci nañ fii bëgg barkeelu ci tur yi Mawlana Cheikh Tidiane waaye tamit ak lépp loo xam ne loxoom laal na ko ak lépp lu jege ak Cheikh xam nga loolu luy am barke la ñu bëggoon barkeelu ci loole gannaaw boo xamee ne du ñàkk nga am ay gis-gis yoo xam ne am nga ko ba tuddee place bi ni Daaru Miraaya su Daaru Miraaya tamit maanaam bi nga xam ne déggee naa ko ci mm. ndax ci làkk marocain yi ñoom dañuy wax miraaya tuddee ko seetu kër goo xam ne kër yu miroir miroir lañ koy wax boo ñëwee ku ñëw rek gis fa sa bopp. te nit du mat lu may nga mën a jis sa mbokk na ko ee eh, man maanaam moom moom mooy yow ku ñëw rek gis fi sa bopp. te loolu moom mooy kër ak taalibe. loolu moom mooy kër ak sëriñ. mooy tax nit ki fu mën a nekk même bu fekkee naqadeeg. Euh, dund ba dafa am sax comme que gis na fa boppam rek dina fa mën a toog dina fa mën a mën waaw loolu mooy sabab bi daa Daaru Birahim euh, kañ nga sànc fii ak lan moo sabab ñëw bi fii tamit na gis nañ ne fa nga dëkk mhm. nekk dëkk Cerno ñëpp xam nañ ko nga bàyyi ko fa ñëw fii nii lan gannaaw boo xamee ne suñu waajur génn naa dina Cheikh Hassan Dem radiyallahu anhu hmm. suñuy mag man leen utaloon ci kër gi ñoom génnoon leen jàng ji man Medina laa laa jàngee ak xam ko ak xam ne ñoo nekk ci dëkk bi alhamdulilah hmm. gannaaw gi ma jàngee ci maax bi ba am bac euh, ci laa samp ma gis di jàng bi jàngale ci kër ga foofu di jàngale xam-xam ci bu buntu raw du cemb bi radiallahu anhu hmm. kon yàgg neen ci daara loolu yaakaar naa muy nekk ay quatre-vingt-treize laa tàmbalee def foofu loolu dars euh, alhamdulilahi rabbil alamin waaye bañ demee ba deux mille six hmm. fekk sama mag bi nga xam ne moom laa topp ci moom Thierno tuddee woon ko Cheikh Ibrahim euh, yàlla defoon mu nekk ko nag ba mu juddoo dafa am ay axawaal yu nekkoon ci moom alhamdulilah mu génn nag ci kër ga benn bés boobu fekk tabaski mu ngi waaj a ñëw ñu wër ko gisuñ ko daanaka mu réer ñu gannaaw boo xam ne tabaski gi passé na ci ay fan ci leen am xibaar ne am na kuñ gisoon fii waaye daf fee fàttu mu ba nga xamee ne nag euh, yàlla def na lu ko soob mu génne àddina fii dëkk yi kenn xamu ko ñu oo préfet bi mu joxe ndigal la nañ ko fi suul ki ko jullee rob ko fii monsieur bàmmeel mu ngi fii ci kër gi fii nii hmm. ba nga xamee ne nag ñëw naa boobu fii yëpp ay garab la fi nga gis nii nii hmm. daanaka àll la woon daa nekk fi woon ba ma ñëw nga xam ne moom moom wax leen mandarga yi ñoo xam moom ñoo xam ne moom la ci laa ñaan nag ne neen ma may fii ma def fi daara sama yaay sax ma wax loolu mu naan sa waxi yi fii fii fii àll ak gerte ngi mën nga def dara loolu ma doon wax ma ne ko incha allah yàlla baax na ci leen ma may place bi euh, quatre loolu quatre-vingt-six la hmm. ma tabax euh, rawdom bi rek defal ko bàmmee loolu defal ko xàmmeekaay moom moo nekk foofu ba léegi gannaaw boo xamee ne nag dem leen ba deux mille neuf ci laa fi commencé nag euh, indi fi ay taalibe moom taalibe yaa ngi commencé nekk sama loxo ma gis na te yar bi génnee xale yi am na ci solo ma am ñu ma ci génnee ci ñoom di ñëw di nekk ñoom fi boobu benn mbaar laa fi defoon benn tànt yàlla na yàlla fay Cheikh Mansour moom ko joxoon ci bala Cheikh Mamoun moom patante bi nekkoon fii aywa foofu la daan fanaan ndongo yi bu mu fi nekkut ndongo yi fanaan foofu ñu ñu nekk ci loolu ba tabax fi benn bâtiment ndaw di fi samp fi daara ñuy jàng samp fi tamit ndegale zaawe bi ñuy ñuy wasifa waaye ba léegi tamit euh, bu nawet jotee ñu bay ci seen suñu kem moy maa ngi tàmbalee bayee mbaam hmm? mbaam laa njëkk a jënd benn mbaam moom laa njëkk jënd commencé ko bayee fii gannaaw gi nag ah, ñuy yokk mbooloo mi fii nii xale bu ñu ma jox ko jàng rek ma indi ma indi ko fii parce que boobu seetlu naa ne ñii nekk fii seen njàng moo gën a gaaw ñi nekk ñi nekk ñi nekk ne ndax fii comme que dara nekku hmm. a neex a neex a nag boobu am nañ ay xelaat yoo xam ne am nañ ko ci daara ndax koo xam ne da nga yaru judd ci daara yaroo ci màgg ji ba pare tamit continuer mission boobu ndax ku ñuy wax kuy wax jàng jàngale. Hmm. moom moom yaa ngi ci daara génn ko ci daara. Hmm, hmm. moom mosu génn ci daara. il faut tamit di nga am ay xel yuy nekk ci yow ak ay gis-gis. wax euh, yi bàyyi boobu radiyallaahu anhu muy wax ne yàlla moo wax ne wa maa ja'alnaahum jasadan laa ya'kuluuna ta'aama wa maa kaanu xaalidiin defuma leen ngeen di jëmm yoo xam ne du ngeen ñàkk lekk moo ne kon foofu ñu liggéey. duñ fi sax kon foofu ñu jaamu yàlla. te da boo seetloo daara loolu moo te mag ñi ci loolu leen ma gis tamit ne xale yi tamit dañuy yàgg ci danañ nekk ci daara waaye buñ leen yarul ci liggéey hmm. suuba ci taxawal lañuy lañuy la ñuy mujj kon foofu ñu delloo daara ju njëkk loolu nag moo tax ñuy ñu leen ñuy rocceeku ndànk ndànk ndànk ndànk ba alhamdulilah rabbil alamin ba léegi balaas euh, bi yàlla dëgëral na ko samp na ko suñ xelaat yi nga xam ne amoon nañ ko ci former ab jeune defar ko def ci moom jikko def ci moom alquran def ci moom xam-xam waaye tamit def ci moom gëm nga da liggéey gëm tamit tàggu tàggu tàggatu ci loolu loolu alhamdulilah moom la ñuy jéem moom la jéem a saxal fii nii waaw moom la ñuy jéem fii nii. macha allah gannaaw boo xam ne ñëw nga ba sànc ba pare. Mhm. gis nañ fi ay ndongo yu bëri diverses nationalités yan nationalité ñoo fi nekk ak ndongo daara yi yow diiru ba nga fi nekkee ba léegi ñi tari ñaata lañ tollagum bu dee am nañu tari tamit ni ñu toll lim bi ñu toll ñi fi nekk nii lim bi ñaata la si ay ndongo daara. waaw lu fi nekk ci ndongo ndongo daara. ci ay. seen nationalité. ci ay nationalité yu différent la. Mm-hmm. am nañ fi waa Nigéria. Mm-hmm. ñoom ñoo fi gën a bari mm-hmm. am nañ fi tamit ñu jógee ko ba Côte d'Ivoire. ñu ngi fii nii Niger tamit am na fi ba léegi Gambie am na fi. Guinée tamit am na fi. ba ci Mauritanie ci Fouta Mauritanie tamit am na ñu fi ñu fi nekk. presque daal sous raison bi ba Burkina Faso am na ñu fi nekk tamit. man bu jóge fukki national laa ñu fi daje. daanaka ñu ngi fi ñu ngi fi daje fii nii waaw. allah ñaata nit ñoo fi taree góom ci nationalité. am na am na ñu tari ñoo xam ne jàng nañ fi tuuti après dem neen mhm. ndax at bu jot dina am ñoo xam ne dinañ dem dina am ñeneen ñoo xam ne. dañuy ñëw waaw ba ci biir Casamance bi euh, xam naa xayma mu ko mhm. waaye euh, bañ ko sañceeg léegi daal li fi taree góom peut euh, ëpp na fukk ak lu teg. waaw jëm jëm jëm ñaar fukk sax lay wax. macha allah ndax fi nekk nii ci waxtu wi nii am nañ fi ñaari xale yoo xam ne ci koor gi lañ leen déglu. Hmm. waaw kenn ki waa Nigeria la kenn ki tamit waa réew mi la waaw. am na fi xale yoo xam ne tamit jàng mokkal leen alxuraan ba pare ñu ngi fi yaakaar naa seen lim jege na lu jege juróom-ñaar ñoo xam ne ñu ngi jàng sax ci école français yi wala ko jàng xam-xam ndax am na fi euh, école français yi ñu ngi xaw a jege fii nii. dama ñu ñu ñuy jàng sama doomam ci ak yeneen xale yoo ne fii allah gis nañ euh, gannaaw jàng bi gis nañ ay mbéy gis nañ fi mbéy yu mm-hmm. ay diverse euh, plantes yoo xam ne ñu ngi ko fiy def ay légumes lu nekk ñu ko fiy def. Mm-hmm. gis nañ fi ay nebedaay ak lépp loo xam ne ñu ngi koy jëfandikoo. ci lu mm-hmm. jigéen di jënd ci marché kon mun na ne maanaam daara ji fii lépp lu fi nekk nii li ngeen di consommer. foofu lay jógee. ak loo xam ne gis nañ fi aussi ay transformation locale yoo xam ne xale yi ñoo koy def loolu hmm. ban formation la ak kan moo leen ko jàngal ak depuis kañ lañ commencé def. Hmm. xam naa loolu balaa balaa balaa balaa ma àgg ci question boobu. Hmm. damay yaatal rek ci njàng mi duwul alxuraan rek moom la ñuy jàng fii. donc ñu ngi jàng alxuraanu karim xale yu ndaw yi ngi jàng même ñu mag ñi tamit am na ñoo xam ne ñu ngi buuxante pour jéem moo ko alxuraan waxtu yi nii ñu fi ñu nafar fu nekk nii ci daara yi ci waxtu wi. man na fukki xale ak juróom yal na yàlla may leen alquran nga xam ne ñu ngi yaakaar balaa yàgg ñu ñu ñu tari noonu tamit nga fi fekkee daara xam-xam hmm. boo xam ne dañu jàngale dënga da fànn yëpp jàngale waaye ba yaram bi diisee hmm. am na ci xale yu fi nekk yoo xam ne ci daara ji leen génnee ñoo amee dar sa dënga da di jàngale man fi ne lu dar sa lay lay joxe par semaine ak téere tariqa bi waaw téere Mawlana la Ibrahima yi man maa leen koy maa ngi leen koy am na fi tamit école boo xam ne sos na école arabe am tamit <clears throat> dañuy dañuy dañuy jàng euh, franco arabe la boo xam ne alhamdulilah xale yaa ngi ciy góorgóorlu bu baax a baax même programme bi jàng mi gaaw na parce que fii demuñu fenn ci daara ji rek leen nekk moo tax kon moo tax njàng mi alhamdulilah rabbil euh, mboolem li ñuy li ñuy jàng daal ci yenn ci xeeti fànn yi ci xam-xam ñu ngi ko fi ñu ko fiy jàngale waaw. moom kon alquran la ak jàngale te a xam-xam ci tradition mag ñi waaye ba léegi tamit ak école arabe pour méngoo ak ak jamono nga ñëw ci li ma laaj léegi nag. Mhm. ci wàll culture bi euh, euh, culture gis nga ko mhm. loolu moom mooy aspect liggéey bi ndax man damay wax toujours ne li may dégg Serigne Cheikh Al yal na yàlla yokk ko kattan yàlla yokk fanam te dëgëral ko àggale ay yëngu d'ailleurs boo gisee mën a dëkk bii nii ci yii leen ko ci ñeent yi ci leen ko fàkkee fàkkee jàng jàngale jaamu la jaamu yàlla liggéey waaw mu ne leneen luñ fi loo fi gis rek loolu daf fee gaar waaye bokk ci waaw daf fee gaar loolu nag ñu ne moom leen bëgg a ñëw ñu implanté ko fii moo tax ngay gis bi hmm. zaawee bi gaa mu ngi dund ñu ngi ñu ngi julli waaye pareegut comme que dugg hmm. nañ ko taxaw laay ba léegi am gut kon loolu moom mooy aspect jaamu yàlla ñu ñëw na ci li nga xam ne moom ci des moom mooy liggéey ndax nit bala moo gore foo mu góor ci dara mm-hmm. soo góorul ci dara du dem tàllal loxo di ñaan taxawalul dara yow yaay góorgóorlu toujours dama xale na leen moyen mu ngi ci biir nit ki ma la yàlla bindee rek yàlla <coughs> jox yàlla jox la xel yàlla jox na la kattan boo xam ne loo jéem ci lu baax yàlla mën na la ciy dimbale ba defal la ci sutura waaye dafay ànd ak muñ ak bañ a yàkkamti comme ni nga xam ne rek noonu leen sampee daal parce que parce que ba léegi dama lañu woon photo démb yi am na jamono amutoon courant léegi am na courant dégg nga ndox maa ngi am na jamono yoo xam ne xale yi fi njëkk nekk seen lekk mbir mi la daan jógee ko bala mu moo bala moo agsi cinq heures day jot am na si ñoo xam dañ daan yéeg ci kaw garab yi sax di seetlu ndax lekk gaa ngi ñëw wala ñëwul waaw kon kon boobaag la waaye euh, léegi lépp fii la nekk alhamdulilahi rabbil alamin loolu nag moo tax wàllu liggéey bi dañ cee jëm bu baax macha allah loolu xoolee jardin bi gis nga. Hmm. ñu ngi fay bay légume légume xeeti légume yëpp li ci ëpp lu ñuy soxla foofu ci légume foofu lañ koy jëlee waaw liñ ci amul la ñuy dem di jënd te ñuy góorgóorlu pour ne bu ëllëgee incha allah lépp lu ñuy dundee moom ñun ñoo koy ñoo koy bayal suñu bopp fii nii la ci ëpp ñu jaay ko boole ko dund ak di nga def daara ji. moo tax gis nga fa tamaateng fa. teng fa ak euh, jaxatu euh, kaani da park kaani kaani bi supame carotte yooyu yëpp mu ngi mu mu mu ngi ci jardin bi ñaareel ba tamit gis nga kii moringa boobu noonu muy nebedaay bi. loolu pour mbuum kese yoo xam ne moom bu gisee mbuum la ko mbuum da ko foog waaye nebedaay dafa am njëriñ dafay faj ñetti téeméeri feebar. <gasps> waaw tey léegi tubaab yi ñoo ko gën a ñoo ko gën a bëgg. tey ni taxawee nii ay mbokki taalibe yoo xam ne dama daje woon ak ñoom Madinatu Munawara depuis deux mille euh, cinq alhamdulilah rabbil alamin ñu jël ci man mbiru Tijaani ñu ñu am taxawaay leen ci daara ji nii ay almaa leen mm-hmm. ñoo xam ne arab leen foofu leen juddoo waaye ci ñoo xam ne ay almaa leen ñu jàppale ñu dara ñoom ñoo ma financé loolu jàppale ñu ko pour ñu pour ñu pour ñu taxawalee ko daara ji moo tax lu am solo la tey tubaab yi ñoo gën a bëgg nebedaay bii nii waaw nebedaay bi am na solo lool moo tax nag ñu ngi ci ñu ngi ciy yëngatu bi nga xam ne tey moo ñu si initié moom nekkoon na Europe ku ñuy wax monsieur Faye hmm. nee na ba mu ñëwee dafa gis ne fii fii bu ñuy bay ñu mën a bay rek mënuñ cee lu may ñaar yoon gën jaa yi waaye la ca la ëpp moom mooy benn yoon rek ngay récolter hmm. te mun a nebedaay bi moom gis na ne luñ mën a cee récolter juróomi yoon da nga ci at mi juróomi yoon ci at mi bu la koy wax na buñ la koy wax ne waaye dafa laaj nag euh, góorgóorlu ci ak mu am ndox bu baax a baax bu ko defee nag weer wu nekk rek wala weer wu teg mën ngaa dagg euh, xob yi jaay ko jëfewut mm-hmm. sunguf bi jaay ko tamit da nga da jëfewut te inge uppi la ci ci daara ji ci wàllu dund bi waaye tamit ci wàllu wér yaram ñoom mm-hmm. ciy fajee bu baax a baax na ñoomene ci biir yu méttee même ci góom yëpp nefe daay daf koy daf koy faj am na faj yu bëri wala ñu dem yóbbu hôpital ñu nefe daay moom la ñuy essayé bu demee ba tey ñu soog a yóbbu mbégale ci hôpital kon plante am njëriñ la yooyu yëpp ci buntu cadre bi rek moom mooy liggéey xale yi tamit dañ cee formé dugut ne dañuy nekk nii rek indi koo xam ne moo leen formé ci ne loolu moom mooy métier mu leen ñuy formé ñuy ànd moom mu leen ñuy wan benn heure nu ñuy koy jiyee nu ñu koy jëmbatee nu ñuy parqué nu ñuy dégg nga jëmbatee waaye tamit kañ leen war a engrais ak nu ñuy roosee loolu yëpp mu leen koy jàngal ba xale yi macha allah. lu ëpp fanweer ci jeunes yi fi nekk tàggatu nañ ci loolu ci wàll ci wàllu mbay mi ci diggante moringa bi ak euh, ak tool yi tool tool jardin. gannaaw loolu euh, ci tënk est-ce que am ngeen ndimbal goo xam ne dafay jógee ci nit ñoo xam ne ñu ngi lay jàppale ci daara ji mbaa ci li ma gis ci maraîchage bi comme euh, jardin bi ma gis léegi nii ak yeneen yi nga xam ne activités yi nga xam ne ñu ngi fii nii te gis nañ ne macha allah yaatu na trop. Mhm. kon depuis boobu léegi ba nga ko taxawalee ak léegi ça fait combien d'années ak ndax am nga si ndimbal. ba ma ko taxoo léegi léegi mbayam nawet bi moom moom moo jiitu. loolu de man fi nekk nii man dinaa bay lu jege soixante ectare par at gis nga tracteur bi moom tracteur bi fi nekk nii maam lépp luy wàññi liggéeyi liggéeyi doole rek maa ngi ci pour wàññi donc tracteur bi fi nekk nii ànd naag machine yi buy labourer machine buy ji machine buy buy xotti ba ci gas gerte gi am naa ko ak buy bàcc gerte gi ak machine boo xam ne tamit dafay bojji danga na mboq. loolu yëpp pour wàññi liggéey liggéey doole bi ak méngoog jamono tamit waaw kon mbay mbay mbay mbayam bi moom ñun moo jiitu ci suñ liggéey. Hmm. maraîchage bi nii bañ ci duggee léegi dafa naa ci ay ñeent ci la war a toll waaye nag ndimbal moom boo xam ne jugee koo na ci nguur. Hmm. nguuru Sénégal wala benn kuréel bu nekk fii nii. Hmm. moom amaguñ ko waaye nag nit du xaar ko dimbal na góorgóorlu rek. waaw waaw boo góorgóorloo. ndimbal dina la fekk ci yoon. <laughs> waaw. Mm-hmm. macha allah xale yi tamit formation boobu yemuñ ci man ni ñuy garder légume. Mm. dégg nga formé nañ leen ci. mooy transformation waaw ko ba nga xam ne tey mën ngaa garder carotte mu dem ay weer du yàqu mën ngaa garder ay jaxatoog yooyu noonu lu yàgg dégg nga du yàqu loolu formé nañ leen ci chambre de commerce dañ leen ci formé noonu lañ leen formé tamit ci defar ay saabu dégg nga am na saabu yoo xam ne mbër boobu bii lañ koy defaree. Mm. ak euh, am na nebedaay ak euh, neb-neb hmm. moom lañ koy defaree mu baax loolu dégg nga ci yaram xale yi dañ koy defar fii nii ñoom beneen saabu ordinaire bi dañ koy defar dañuy defar eau de javel mën leen ko waaw four bi tamit dañ leen a yóbbu ci benn place ñu tàggat leen bañ mën a defar mburu ba li ñuy ndekkee ñoom ñoo koy defar fii nii ak nu ñuy lu ñuy dundee fii nii waaw noonu tamit ci élevage tamit euh, noonu leen leen ci formé fan yi sax dina am benn waaye bu ñu fi yebal boo xam ne benn association moo la gën a ci jeunes yi nga xam ne jàngal nañ leen pour ñu ñëw gën a tàggat xale yi ci yaram jur mi ci xar yeeg ci nag yeeg ci ganaar yeeg yooyu noonu. macha euh, mooy kàddu gu mujj sëriñ bi gannaaw bu ñu dégloo li nga xam ne développé nañ ko fi yëpp. waaw kaddu gu mujj gi rek mooy sant yàlla ak gërëm la tamit ci teewaay bi nga xam ne ñëw nga ko ci daara yi pour fësal dégg mbir mi fësal gi nag du wut fësal pour. ut cant wala ut ku la ku la ku la dimbale mm-hmm. waaye dama gëm ne liggéeyu lislaam ku nekk rek mën na cee ut sa morom mm-hmm. lii xalaat la boo xam ne ñu ngi jéem pour implanter ko maanaam nit dina ko dégg gën ma koo man gën ma koo jekku ñëw taxawal lu mel noonu mu nekk te da koo xam ne lislaam yëpp ko lool waaw ndax lislaam benn kër la benn tool la kenn mënu koo xaaj da nga ñaar waaw tey li ñenn ñi di buuxante xam nga tey foo fekk buuxante xëccoo mbiri àdduna la. mbiri àdduna la waaye yàlla moom xam nga amul xëccoo. wala <laughs> amul xëccoo. moo tax nag li lii daal fësal gi maa ngi la ciy gërëm bu baax a baax pour daal moo fës nit ñi tamit xam ne ba léegi am na ci doomi soxna yi ñoo xam ne ñu ngi góorgóorlu. waaw keneen koo xamante ni mën nga koo roy ba def lu gën tamit nga mën ko ci amee ñaareel ba tamit keneen ko xam ne mu ngi ci. nekk ci anam ba mu gën a matee. Hmm. bu la mënee ñëw doole la xalaat mu doole la xalaat ndax nit ki lu mu xamul rek mënu mënu cee jëriñe mënu cee doole xalaat il faut nga xam ko moo tax kon maa ngi lay gërëm ci taxawaay bii nii. di euh, wax rek ne euh, dénk xale yi nga xam ne ñoo toll ci jàng ñu góorgóorlu dégg na ci jàng góorgóorlu tamit jàng ak jàng jëf. Hmm. ndax xam-xam bu am te jëfe amul solo wax ju bari mënta yóbbu nit fenn. fii li mën a jëriñ nit moom mooy la ngay jàng dégg nga nga jëfe ko fi ne bu ma sañoon xale buy laaj danaan diw lan lay jëf ba pare bala ngaa wax ne diw lan la xam waaw du na da ngay dégg nit rek mu wax wax yoo xam ne këf na sa xel mi mën a waajaangoog déedéet leen bàyyi xel loolu bu baax a baax ndax buñ jàngee leerlu xeli leer waa kenn du la mën a nax kenn du la mën a utiliser kenn du mën a foo dégg nga ci sa sentiment te réew mi manta développer lu may la koy mooy xale yoo xam ne dañuy jàng comme ni ko Baye waxee am culture waaye tamit ñeme pour jëm ci liggéey ak sampu loo xam ne dina nekk njëriñ ñeel sa askan ñeel dégg nga euh, euh, li nga xam ne moo la wër ci àddina bi lépp moo tax daal man loolu laay loolu laay tëjee waaye tamit gën a fàttali nit bi nga xam ne ci leen ñun ñu ngi koy dund ndax euh, du ngir moo xam ne mbir réew mi kese la. waaye àddina lépp la ñu gën a am discipline gën a gëm ne feebar bi am na. Hmm. damay tiit lool di dégg nit koo xam ne daal ma naan politique la mais politique loolu waxi ku daanu ci la feebar kenn du ko politiquee lu nekk nag dina am politique politique politique bu rafet naka ngay fexee ba lii nit ñi buñ tiit waaye tamit neen watandiku loolu naa ci d'accord hmm. waaye politique la boo xam ne dañ koo pexeel rek teg ko teg hmm. loolu moom dégg na amul feebar bu am la te mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi reye feebar boo xam ne tamit gis nañ ni mu ni mu jeexitalee ci économique àddina bi hmm. réew yi nga xam ne am neen doole ni mu leen ni mu leen daanee ci waxtu wi nii kon ñun tamit nañ gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax euh, tey topp tamit suñu kilifa yi nit dangay am kilifa nit da am kilifa yàlla def ñoo digal na leen topp yàlla ak ab yonentu waaye tamit topp topp kilifa yi kilifa yi mooy ñi nga xam ne yàlla moo leen teg ci kanam ñëpp nangu ko tey bu fekkee ñun ñi aju Medina suñ kilifa suñ kilifa yi ñu topp leen mooy xalifa bi ak ñi nga xam ne ñoo koy jàppale te ñi koy jàppale ñëpp seen kàddu kàddu dégg nga xalifa bi bañ a uutee ak ñoom tey doo mën a am ay borom xam-xam yu mag yu mel ni xalifa bi Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane yàlla yàlla. yàggal ko ñëwoon ak ay rakam Cheikh Mouhamadou Mahi Cheikh am tamit dégg nga ne imam Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé ak euh, porte parole. ki nga xam ne moo amee kàddu kër gi Cheikh Mouhamadou Mahi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen sa xalifa bi tëral lim tëral. nit di ko contesté. loolu ñàkk te te duwul lu baax parce que kilifa moom dana gisee foo xam ne yow gisee woo li am ci am ay information yoo xamoo yow la boo toogee sa grand place mel ni Abdou Dame sa xel rek man naa am tëj bi moo la dem ba stressé la nga bëgg a nga bëgg faa jaar jumaa yi ñu tëj ak nangam ak nangam ak parce que parce que ñi nga xam ne tey ñoom ñoo la jiite ñoom ñoo gën a xam te lépp lu xew bu ëllëgee dañ naan ñoom ñoo seetaan. Mhm. te buñ diglee nga bañ a def adduna bi naqari wax na fii ne wéer ak wéer ak moo jiitu wér ak diine balaa naan ne fa. moo tax nag ñoo xam loolu discipline bu baax a baax jàkk yi ubbi neen ko waaye dafa am ay condition condition yi ñu gën koo matal comme ñoom nuñ ko diglee waaw kuy génn timit nga sol say max mas masque yi nii waaw dégg naa ci ci ay expert nee neen masque yi bu ko ñu solee dina mën a xeex feebar bi soixante-dix pour cent kon kay loolu yomb na hmm. buñ ko defee rek incha allah boole ko ñaan yàlla yàlla mën nañoo dimbalee ba yàlla musul ñu dëngale ci feebar bii nii kon ñu ngi ñaan ñaanal ñëpp ñu ngi ci weeru ñu ngi ci fan yi mujj ci weeru koor te moom mooy fan yi nga xam ne mooy meññet ak dëngale weeru koor hmm. ñu jëm ci euh, fan yi goreel dëngale ci safara jëm ci fan yi fan yi euh, lu fuuglu leeratul xadri ñu ñaan ku nekk yàlla dafa ko tawfiq nga dajeeg leetu xadri ci anam ba nga xam ne gërëmloo na yàlla tabaraka taala yàlla na yàlla goreel ci safara te yàlla nangu suñ koor nangu suñ jaamu yàlla ñaani ñi ñaan yëpp yàlla ko yàlla nangu yàlla ñaani ñi ñaan yëpp yàlla ko yàlla nangu yàlla na fi yàlla jëlee feebar bi yàlla def dëppoo dégg de ci réew mi ak déggoo yàlla tamit maye xel mu dal ci ku nekk ñu rafet njort ci suñ biir yàlla ñu yàlla defal loolu yow matu Mustafa maa ngi gërëm nag sàll bu baax a baax bàyyi Barhama universitaire xam ne euh, ñëpp ko moom dama wax ne pays bi rek waaw ba ndax bàyyi moom ñëpp ko moom tiitër yi ñëpp la kon lépp loo xam ne tuddee nañ ko ko rek xam naa ne Sénégal yëpp ko moom te ñëwe ci gërëm bu baax gis nañ ni nga koy defee ànd naag professionnel bu mat sëkk waaye tamit ànd na tamit ak itte ba lu baax lu nekk ak fu mën a nekk rek nga jël ko jéem ko tasaare te nag li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne addaalu alal xeyri ka faa'ili kii tegtale lu baax moo ki koy def benn ki nga xamante moom mooy def lu baax yow nga jël ko wisaara ko yaa ngi moom yéen a yéen a a yem ci yoon la kon jërëjëf. jërëjëf yàlla yàlla yëkkati na. amiin amiin yàlla yàlla dëgëral. amiin grand yàlla jox la jumtukaay yoo xam ne dina méngóog jamono. amiin ñu ngi lay gërëm bu baax ñu ngi lay tiitaroo. asalaamaaleykum.